bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda. c'est la référence. waxtu wi ñu jagleel xibaaru wolof yi jot na ci rajo Alfayda auditeurs yi ahlan bikum li gën a fës ci bopp xibaar yi kilifa yi Medina bàyyi ci njiital Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé dem nañu ca Ndakaaru ngir amal CND ndaje ak ki nga xamante ne mooy jëw na ñu denk lépp lu jëm ci wàllu ko biir réew mi la ñu doon waxtaanee muy wàccaayu ko gàmmu ko international bu Medina bàyyi la gën a fës nag ca waxtaan wa bokk na sa assainissement Medina Baye yaatal gi ci biir xibaar yi lay doon. ca geneen wàll ga nag ki xam moo di xalifa bu Medina Baye président Serigne Mboup bi nga xamante ne ren foire internationale bu Kaolack daf ko daal di tuddee ki nga xamante ne moo di Baye Niass xalifa bi daal di koy lu ñaanal ko yàlla ngir mu am ndam ci ay projet nga xam ne lépp njëriñu Kaolack ak Sénégal la njëriñu Sine Saloum moom Salin moom bokku ci tubaab ba fay jëfandikoo askan wi ci anam gu jaar jaarut yoon jël suñ xorom si ba pare di noot askanu Kaolack lii la nag di kàdduk mouvement FRAPP France dégage ñoo ko xamle bu njeejeen professeur Babacar Diouf ndax doyal nañ ci seen maire ba nga xamante ne mënta bind fëttale xamu dara mënta saafara seeni jafe-jafe maire yi bu ko woon moom faatu seen samp dëndëm ngir jiite ko lii bu yembee dinañ ci toftal xibaaru biti réew yi ànd ci ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram ñu ànd ci ak Moussa kan li ci yéene yi mooy ponk bi koy ndar képp su ngeen taaxarloo auditeurs yi ma ñoo gën ci yaatal gi. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu auditeurs yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci xibaar yi ci rajo Alfayda dañu koy doore ak CND di ndaje mi nga xamante ne moo boole jëwriñ ju ñu dénk wàllu ko biir réew mi ak kilifa yu Medina Baye ci njiital ki nga xamante ne moo di porte parole ba Cheikh Mahi Ali Cissé ca Ndakaaru lépp ngir waajal gàmmu ko international bu Medina Baye la gën a fës nag ca ndaje ma moo di wàllu assainissement suñu ndaw Cheikh Babacar Dieng demoon na ca Ndakaaru ànd ak ñoom ñu teew lu nettali ki Kaolack moom tàggale ko mbalit tëli yu yàqu mbedd yu xotteeku ak ndox mu taa dana doon lu jafe lool maanaam daal wàllum assainissement mu ngi wéy di doon jàmbat ci biir capitalu Faydu Tijaaniya lii nag waxtaanee nañu ko ca biir ministère de l'intérieur bi ñuy waajal gàmmu gi Cheikh Tidiane Gaye mooy rapporteur général bu comité bii ñuy wax COMAF waaw mu ngi doon jàmbat parce que ci nawet lañ nekk te gàmmu nawet dafay ànd ak léeg muy taw li ciy firnde rek mooy samedi ci guddi bi mu tawee Medina gis nañ nañ mbedd yi ni mu mel surtout tali boobu nga xam ne dafa dem école arabe te tali boobu dafay jouer rôle bu central ci gàmmu Medina gis nañ quartier yu mel ni Fass Cheikh Tidiane ni soxla assainissement loolu yëpp am na lu ci état bi liggéey te pareegut waaye nag comme pareegut dafay laaj action boo xam ne action bu ponctuelle la pour que nit ñi am ay conditions de séjour acceptable ci gàmmu bi. wàllum assainissement boobu nag pompe dëkk mu ngi bëgg a def ay weer service d'hygiène gi ci dëkk bi ne mu ngi daw ci mairie bi ngir 200 litres désinfectant 50 litres grésil concentré 50 litres eau de javel 100 litres poudre insecticide une tonne gasoil essence super 100 premier adjoint à bi mu teewee ci réunion bi wane na ne maire bi mënul dara. expression boobu yëpp mu ngi sama portable indi na ko mairie mais dama wax ne entre laaj 50 ki nga xam ne million la am 1 million bi la joxe du expression boobu boo ko mënul satisfaire da ngay laaj keneen parce que mairie bi d'accord na pour accompagner amu ko di ko dépensé manuma précise nag ici dans cette salle que ne un million la wala leneen la. lii nag ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome mënu ko nangu tax ci saa si mu dagg docteur Thierno Dieye. Euh, docteur. oui rafetlu nañ bu baax démarche bi ak ni nga ko waxee rafetlu nañ ko bu baax parce que dina tax du ñu am surprise. le fait nga wax ko en toute transparence lii mënu leen ko. dina waral solution ñu wut ko génne ko mais solution dafay tàmbali si peut amuloo éléments yi xaj na léegi léegi. boppam nag mujjee génne mairie bi ci luy pompe dëkk bi yooyu yeeg weñ ñi dee balaa gan yi di ñëw teg lépp ci ndoddu état bu Sénégal. li ma wax monsieur le ministre moo war a wax accompagner service d'hygiène parce que c'est l'état nous tous on est dans l'état parce que mairie la mu am moom la ma la joxe. lii nekk le service yu fi nekkoon ak comité bii di COMAF maanaam dans salle bi mujjee mel ni stade Lamine Gueye ndax commentaire yi ñëpp ñaawlu taxawaayu premier adjoint au maire ci gàmmu gu bi. shukran Cheikh Babacar Dieng annaatiqu rasmi nag bismil hadara di porte parole bu Medina Baye Cheikh Mahi Ali Cissé moom nag ba mu jëlee kàddu woona taalibe yi ñaax leen ci ñu jël matuwaayu sàmm ndigle kër docteur lépp ngir mën a mucc ci corona bi nga xamante ne ba léegi mi ngi ci réew mi te ku nekk war naa bokk ci ñi koy xeex ay kàddoom Cheikh Babacar Dieng moo ko taataan. ñu ngi ciy gàmm goo xam ne dëgg-dëgg situation bu jafe la ndax ba léegi Covid bi mu ngi ci àddina bi kenn yow ne yow yaay ki nga xam ne yaa war a xeex ak Covid mooy doo ko wàll kenn kenn du la ko wàll boo ko defee ci sa bëgg-bëgg li ci des ndimbal yàlla ñu ngi ñaan yàlla mayeen ndimbal googu ñu ngi ñaan taalibe yi fépp fu ñuy mën a jugee nañu sàmmanteeg dénkaane yi nga xam ne kër docteur ñu ngi ko dénkaane dénkaane yi nga xam ne autorité yi ñu ngi ko dénkaane te lépp nekk loo xam ne dafay delluwaat suñu jàmm ñun ndax ñun Sénégal lañ am ubbi suñuy bunt bi lu may loo xam ne nii dafay yokku Sénégal benn xalaatkat dafa waxoon ne damay ubbi sumay fenêtre pour courant yépp seen ngelaw upp suma néeg waaye nag ci charte benn ngelaw buy buddi suma garab du ànd ak loolu daal nañu yàlla may loolu bañ dugg ci gàmm goo xam ne dañ ci génn dugg ci ci bismillaahi génn ci alhamdulilahi gan ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm bàyyi ñu suñ Sénégal bi nga xam ne mu ngi am jàmm jàmm googu di yokk di gën a barke di gën a law yal nañu yàlla defal loolu mbas mi yàlla génnee ci réew mi génneeku ci mbooleem réew yi lislaam yi ñi nga xam ne ñëpp joxe nañu seeni kàddu pour def xam ne moom lañ sàkku ci ñoom nga xam ne buñ koy sàkku du ne wax ne suñ bëgg-bëgg fii dañuy jàpp rek ne ñi ñu ànd ak lii lañ mën a gum waaye waxtu bu ñu jàppee ne mën ngeen lu ëpp rek ñi laaj leen lu ëpp loolu bu ñu laajee téeméer tey bu ñu yurndoo suba gis ne mën ngeen ñaari junne dañ leen laaj ñaari junne ñi ngi gërëm ñi ngi sant ñi ngi ñaan yàlla gàmmukat yi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñi ngi wax la bàyyi waxoon hani an ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalum bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun fa tammalana albushra wa amma nawaaluhu mbég googu mbaax googu gàmm ngi ñëw ñu ngi teeru ci loolu yàlla la ci kenn ëppale sénégal jàppale suñu président jàppale ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ndax benn waaye laa déggoon mu ne boo duggee ci oto di ñaanal chauffeur bi ñaanaloo chauffeur bi sa bopp nga ñaanal ndax bu muccee nga mucc président bu muccee ñu ñëpp ñu mucc ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla teg ko ci yoon wi nga xam ne li sénégalais yi di séntu ci moom dana mën a assurer loolu loolu yàlla rek ko mën yàlla na ko yàlla defal mairie bu Kaolack ndangaan nag jël nañu engagement ci lépp loo xamante ne lu ñu war a def ci gàmmug Medina Baye la danañu ko def waaye fekk mu tolloog fa seen doole toll lu laaj ko kilifa yi moo ko wax moo toogaloon mairie bu Kaolack ndangaan ca ndaje mañ doon amal ca Ndakaaru jëm ci gàmmug Medina Baye ñu teewlu ba tey ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng gàmm gi nag man dama ne gàmm international parce que gàmmu gi waa dëkk bi rek duñ fa ñëw yéen a ko tudd waa Soudan waa Nigéria waa Mauritanie alors moo tax ñu am mbégte pour wax dëkk dinaa gërëm koo xam ne kii jar na gërëm mu le délégué régional de la Sénélec parce que ñoo nekk moom te gis nañ ne engagement yi mu jël te ñu yaakaar ne dina ko def kooku benn chef de service ma jël responsable ma teg waa santé parce que foofu laa bokk teg si nag xeebu ma kenn sécurité beeg yépp parce que mbooloo mooy doole te moo tax ñu ñëw fii parce que lépp waxoon nañ ko ci CRD tënk ko mais comme doy ñu moo tax ñu ñëw fii ñaan ndimbalu état mairie Kaolack bi may waxal jël na engagement ne lum naan def dina ko defaat kooku wax naa ko ci kanamu ñi li nga xam ne lii mënuma ci jël engagement te wax naa ko ca kuréel ga dama ne service d'hygiène li muy pompé bu fekkee ne mairie Kaolack rek la ci yaakaar kon pompé ko kon dama koy waxaat fii ñu dégg ma lépp loo xam ne lii laaj nañ ko can lañ am moom la ñu joxe parce que dañoo nekk ci situation boo xam ne bi kilifa yëpp xam nañ ne mairie am na lu mën ak lu mënul kon liñ la jox moom la ñu am te incha allah li ñu am dinañ ko joxe te préfet bi mën na ma seede lu may yëkkati ci àdduna pour affaire service d'hygiène dama ko jaarale ci loxoom pour mu am transparent parce que weddi gis bokk ci bu ko ne waa mairie fi ñëw jox nañ ma lii jëlal kon ku nekk na nga jàpp li nga wax moom mën a def ñaan nañ ko soixante toilettes mobiles jafe na mu am ko moom parce que gàmm gi dama ko xam xam kaw la xam ni mu demee nañ wax li mën a am bu ko defee ñu jóg ni bi seetaan bu nekk nag ndax la ko waxoon da ko def parce que wax loo fi du def amul njëriñ man loolu laa bëgg a wax CRD au niveau national lii lañ koy doye pour li nga mën nga wax ko ba kilifa yi dégg ko ku nekk indi la nga mën comme ça ñoom ñu boole bu ma jógee si salle bii balaa gàmm bi ñëw incha allah li ma ci yokk mooy dinaa jéem fexe ba mobilité urbaine am parce que garage bi ñuy wax muy bouchon bu trois heures ñëpp constaté ko dinaa jéem li ma ci man te garage bi dama ne woon dina ubbi avant kam ñaanal leen ma ci loolu jëwriñ ju ñu dénk nag wàllu ko biir réew mi na joom nag ba mu jëlee kàddu daal dinay teel a xam la ne gàmmu ko dina bàyyi du gàmmu gu ndaw international la Mauritanie Nigéria Europe Amérique fu nekk la taalibe di bàyyi ko ci àdduna bi ba tax état bu Sénégal ak service am yi fas na nañoo jël mboole matuwaay ngir ñu amal ko ci anam gu mucc ayib ndax dina yokk koom-koomu Sénégal waaye tamit gën a dundal diine ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng. gàmmu Medina Baye du ñu tayyi ci di ko fàttali dafa doon gàmmu goo xamante ni li koy mandargaal mooy biir waxtaan wi leeral na ko boo jëlee dimension bi mu am duñ ni sax dimension rek régionale la mais dimension international la réew yi wër Sénégal yépp dañ koy teewee seen doomi réew di fa bàyyeekoo di ñëw di ko fekkee di ànd ak yéen teewaay bi waaye di ànd ak yéen tamit jëf gi leeral nañ léegi nii mbokk yi nga xamante ni dañuy bàyyeekoo Mauritanie dañuy waajal seen bopp ba lépp lu ñuy yittewoo diirub li ñuy nekk Medina Baye ñoom ñoo koy aju ci ñi nekk ci dëkk bi te suñ ko defoon it yàlla dina ko matale waaye pas-pas ak yitte ju kawe mooy waral ñu yegg foofu ci seen doxalin Afrique de l'Ouest buñ ko jëlee ci Nigéria nit ñi dañ fay bàyyeekoo ci Ghana ba ci Sierra Leone waaye ba ci réew yi gën a sori mu jëm ci Europe ci Amérique wala yeneen réew yi gën a sori ci Afrique muy Soudan sax nit ñi dañ fay bàyyeekoo ñëw di teewee gàmmu gi kon gàmmu googu am na dimension spirituelle bi nga xamante ni wax nga ko léegi sëriñ bi jikko yi di ko dëppale wala boog di jéem a roy ki nga xamante ni moom la ñu yàlla royloo muy suñu tegtal ci diine muy Seydina Mohamed alayhi salaatu waaye bu loolu jàllee dafa am tamit une dimension économique te dimension économique boobu mooy waral échange weccele yi nga xamante ni mi ngi am diggante Sénégal ak yeneen réew ñu ko ci seetlu ba tax na dina dundal gox waaye dina dundal koomu réew dafay mel ni dafay boole ñaari yiw dafay boole yiw bi nga xamante ni day suuxat ruu waaye dafay aadama te nit bu fekkente ni mbiram yéwénul ci wàll wi mën na indi gàllankoor ci wàllu jaamu yàlla kon loolu lépp yiw la ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax ni service su yi bi dinañ taxaw su la coordination au niveau régional du gouverneur ba lépp li nga xamante ni moom mooy li ci war ci wàllu exécution engagement yi ci ñu defagul ñu taxaw ci ba fileeg ñu yegg ci gàmmu gi ñu def ko ndaxte loolu lañu suñu kilifa sant muy le président de la république Macky Sall bu ñu bàyyi ko ndakaaru fa ñuy del siwaat ci Medina bàyyi ki nga xam ne moo di xalifa bi Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass daal dinay dalal ki nga xamante ne moo di président Serigne Mboup njiital mouvement ànd defar Kaolack bi nga xamante ne foire internationale bu Kaolack di FICA ren ji la fu ko tuddee ki nga xamante ne moo di bàyyi Niass li ni mel na guléet la li ko waral mooy taxawaayu Baye Niass ci Sénégal bitim réew ak diine ji président Serigne Mboup ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Diagne xaadimul ummati ñu ngi lay ziara li ñëw tey nag mooy foire bi suñ pap alaaj Idrissa Gueye moo ko njëkkoon a def da doon ko xalaat ne nañ ko def foire internationale foire bi nag xam naa li tax ñu fonk dañoo gis ñam ndax jamono la boo xam ne nii luy média ci Sénégal luy média ci Afrique danañ tudd Kaolack fanweeri pays ñoo fi ñëw ñi fi ñëw di exposé danañ wat cent ñi nga xam ne nii tamit danañ ko visité ñu ko xoolee mën na trois cent mille daanaka population Kaolack bépp danañ fi dem ak ñeneen dem tur bi ñu ko tuddee nag Cheikh Ibrahima tey lañ njëkk a tuddee kilifa foire bi bu njëkk dañ daan def invité d'honneur daaw invité d'honneur mooy Maroc ndax du ñaari at 2020 def nañ ko moo tax ñu bëgg a fexe ba duñ ko génn ndax nit ñi soxla nañ ko namm nañ ko ndax liggéey bi dafa xaw taxaw te boo bëggee dëkk mu yëkkati ko foire ci li yëkkati dëkk la ndax ñi nekk ci àdduna bi yëpp ngeen gis nañ ne foire la ñuy yëkkati ndax sax daanaka l'islam soo xoolee ci foire la wàcc ndax kaambatul foire la ñu ñëw tàggu la ci boo ci àndee nga ñaanal ñu Mauritanie tamit ñu bëgg gis kilifa yi waxtaan ak ñoom ba nga xam ne nii turu Sénégal turu Cheikh Ibrahima turu Kaolack dana tas ñu bëggaat ci defaat tamit leneen exposition exposition bi mooy wane Cheikh Ibrahima li nga xam ne nii moo doon esprit patriotisme bi ci saahir bi ak ci baatin bi yëpp mooy lan moo ko bëgguloo woon Kaolack lan moo taxoon muy wër fu ne mu defa tasaare fa diine di liggéey di ñaq di wax bu baax a baax a baax ne li ko jaaxal mooy gis ku bëgg tedd te doo liggéey Cheikh Ibrahima ku yàlla may la ci diine ci wàlliyu waaye ñu xam ne tamit amoon na gis-gisu àdduna ak loo xam ne nii daanaka gis-gis bu raw gis-gisu chef d'état yi la loolu tamit yow yaa ñuy booleeg ñu ngi ko war a defal lañ fa war a wax lañ fa war a def incha allah loolu daal moom lañ ñëwoon tey pour yëgal la ko pour tàggu la ci pour sàkku ci ñaan la mu ko tontu nag moom Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass moo di euh, sargal bu baax Serigne Mboup rafetlu taxawaayam ñaanal ko yàlla ci projet yi mu am ci Kaolack ak Sénégal njëriñu askan wi la rawatina foire bi nga xamante ne lu baax la ci diiwaan bi kàddu xalifa bu Medina Baye Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan ñu ngi sargal Serigne Mboup ak bépp initiative boo xam ne jël nga ko rek xamal ne da nga koy sargal ñu ngi ciy ànd ak yow ñu ngi la ciy ñaanal rawatina nag initiative bu yenn ni foire dajale àddina bi ndax fi nekk ne àddina bi toll na fu nga xam ne buñ dimbalantewut ci suñ biir taxaw taxawaay bu dëggu boo tudd nañ gis loo xam ne xaaruñ ko ndax métit yi xew ci àddina bi yëpp lakk yeeg yi xew yëpp ci àddina bi alal yu bëri yi yàqu ci àddina bi yëpp dina daanu ci suñ kaw ni ñu ko yëg ak ni ñu ko mën ci yëgee donc man war nañoo préparation boo xam ne dinañ am fuñ teg suñ tànk lii ngay def nii ci préparation yi la bokk parce que yaa ngi jokkale Sénégal Kaolack ak addina bi yëpp addina bi yëpp buñ fi ñëwee xam buñ fi ñëwee gis buñ fi ñëwee xam ne ay nit ñu bëgg a yëngatu ci seen développé wu réew ñoo nga gis boo waa dëgg-dëgg dimbalanteeg Kaolack dina yomb te loolu ngay jéem loolu ngay def te wone nga ne am nga capacité ndax li passé ci sa dundugum yëpp wone nga ne góor gu ñuy wóolu nga góor gu ñuy ñaanal yàlla nga góor gu ñuy bëgg projet yi nga am yépp réussir parce que amoo ko pour Serigne Buub rek mais da ko am pour nit ñi mais da nga ko am pour Sénégal mais da nga ko am pour Kaolack mais da ko am itam pour l'islam bi nga xam ne moo ñu tënkale ñun ñëpp bon ñu ngi ànd ak yow ci sa gis-gis boobu ñu ngi la ciy ñaanal yàlla ndax li passé ci sa dund woon nañu loo yóotu rek yàlla nga ci ànd ak yow di la dimbale comme ni ko mun naa waxee léegi ndax li nga indi yëpp nit ñi rek nga koy indil réew mi indil nit ku bokk seen téere passage bi ngeen may romb may bind damay wax ne nit xalifa yàlla la ci kaw suuf yàlla ko xalifa yàlla boobu nag al fokk mu am lu ko préparé ndax mu yëg responsabilité boobu boo amee ku la préparé pour nga am responsabilité man xalifa yàlla la yàlla teg na la responsabilité responsabilité yi nag mën nañoo wutee responsabilité religieuse responsabilité économique responsabilité politique yooyu yëpp ci responsabilité yi nga xam ne yàlla nga koy responsabiliser nit ñi yonent fi gën a màgg ne dañ ko booleeg Jibril ba mu àgg kon nag yaa ngi sóobu te yoon woow nga sóoboo ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax itam di la wax ne ñi ngi ànd ak yow ñu ngi lay ñaanal yàlla sa projet yi nga am yëpp pour Kaolack pour Sénégal pour addina bi yëpp itam pour Afrique yàlla la ci yàlla taxawu. yéen ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu lagg dem ca Touba foofa nag askan wa nga xamante ne ndox mi fa nangu seen kër yi ñu nekk ci ay jafe-jafe ci mbënd mi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati na xaalis bu bari daal leen koy dimbalee commission bañ ko dénk nag amal nañ séddale gi ci teewaayu suñu ndaw Moustapha Mbaye ndimbal li nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides jébaloon nag ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci mbënd mi gouverneur bu Diourbel góor gi may ànd naag maire bi ak Hizbut daal di koy séddale 2528 maanaam ñaari junni ak ñetti nit ñoom ñoo loru ci mën biñ ko jotee si la ñu nag liggéey ak commission bi ne nañu leen jox seen ndimbal waaye dañ ko organiser en commission pour mu gaaw commission bi mooy ñi nga xam ne teg nañ leen fii déjà commission de paie def ko ñeenti taabal yoo xam ne ku ci nekk jox nañ la xaalis jox la ticket yoo xam ne ko luñ jox xaalis ba pare daal di la jox ticket nga dem jël sa ceeb loolu nag bu ñu ko mënee Hizbut Tarqiyyah mi sëñ Youssou mi nga xam ne yebaloon nañ ko ba mu nekk ñun li ci sëñ bi joxe yëpp mu teg sama loxo jàpp na ci léegi mu ngi ciy jàpp ndaxte commission bi dañ soxla ñu yendu fi ñu añ fi loolu lépp moo koy joxe transport ceeb bi moo ko assuré ci wàllu boppam ba ci magasin ceeb ba moo fexe ba ut magasin pour ñu denc fa ceeb ba ndax moyens mel noonu boo ko bëggee joxe dafay laajaat yeneen moyens. gouverneur jotoon na taxawal kon commission boobee mu jigi lañu tënk mooy képp ku nga xam ne loru nga danañ la jox juróom-ñetti junni waaye it danañ ci teg saaku ceeb moom Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. sant ngërëm ñu ne la Moustapha Mbaye ñu daal di nag dikk fii la ci diiwaanu Kaolack ndangaan eh, dem ca eh, fa nga xam ne moo di Medinatu Jaylaani ñu ngay waajal gàmmuk ren gi nga xamante ne Cheikh Mouhidine sàmba Diallo dundam gi yëpp ci yonent yàlla Mouhamed la ko def ci xamle li ni mel mooy oustaz Omar Ndiaye bokk ca njaboot ga ñu teewlu ko ak Cheikh Babacar Dieng. bisu tey bii nag mooy bis bu njëkk boo xam ne ci lañ dajewaat ak njabootam ngir nag waajal ci zaahir bis nga xam ne moom la yonent bi séddoon sëriñ bi sëriñ bi séddoon ko boppam dem ba ko sax alxabib muy bi nga xam ne dundam yëpp moom sëriñ bi ko oon ak dund ak njobootam ci bëgg sallallahu alayhi wa sallam sukkandikoo ko nag ci la Maodo waxoon wa laysa nafaon ala hubbin bila amalin fa taabian sunnat al muxtaari taxtanimi sëriñ bi jël na dundam jël na alalam jël na njobootam jël na wëram jël na jotam lépp labal ko ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo nekkoon roy waayam waaye moo nekkoon itam idolam ba nga xam ne léppam daf ko séddoon yonent boobu yonent boobu nag mu séddoon lépp léppam ba jël njobootam sax sédd yonent bi moo tax bési yonent bi su jublu see daanaka njobootam dootuñu ànd ak sago mën naa la ne mboolem région yi nga xam ne ñoo jàpp Sénégal tey amul ci benn région boo xam ne amul nit ku fa bàyyeekoo ngir ñëw ñu waajal béréb bii nga xam ne incha allah ci la ñu war a tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Maodo ne woon na attiroo wa baxiroo wa afriso sajadaatikum takriman alal xuzami nee na nañu parfone dëkk bi nañu setal dëkk bi nañu ko bale nañu ko lal ay moket ko rafetal lii lépp ngir teertu juddoo ki nga wa sallam su nekk doon nag moom dara du am kon loolu moo waral njoboot gii ngeen gis fii kenn fayu kenn luyewu kenn joxul leen passé kenn ku ci nekk yow yaa ñëw ngir matal sa cofeel ci yéen yaa ñëw ngir matal accord ak engagement bi nga xam ne jëloon nga ko ak sëriñ bi bu ngeen ànd yéen ñëpp màggal yonent bi sallallahu alayhi wa kon maa leen di wax ne jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ak fu ñu mën a ko xuus nañ ay manding dox nañ ay kilomètres ñu préparé dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxin la ndax ñun duñu préparé soo déggee di préparé muy kuy noppaleku ñun du noppaleku kera ba ñu lemee bâche kera la ñu tàmbale waajal gàmmo gi te gàmmo gi itam heure bu ñu lemaatee bâche yi tàmbale nañ waaj kon gàmm duñu bett mosuñu jóg itam ci di ko préparé kon mosul ñu bett fa nga xamante ne nag tey fa la euh, Cheikh Mouhidine Samba Diallo di euh, noppaloo rafet na lool mu am yoon wu fa yegg jaaduwut benn yoon place ba ñu di ko sàgganee oustaz Omar Ndiaye moo wax li a leer new bi ëpp lamb na muy tàkkee pour ñun fii moo ko gën a leer mais pas-pas boobu nag ñun ñoo ci yeggagoo waaye am na ñoo xam ne yeggaguñu ci pas-pas boobu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kera bi mu dëkkee Madine jàkka ji mu fa njëkk a tabax soo taxawee di julli ci jumaam ji li tàmbalee ci ndigg li ci bopp bi dafay nekk ci biti waaye ana jumaa jooju tey nu mu toll tey ci taar la nekkoon foofa nag mooy nekkaat ñun ci gàttal ngeen baal ma terme bi ma a utiliser maa ngi jégalu ñëpp du tooñ moo tax ma di ko utiliser mais dama koy ne dañu am ndey am baay Sénégal mooy suñu ndey Sénégal mooy suñu baay kenn nit gënut ñu doon sénégalais kon lépp lu sénégalais di am ñun war nañ ko mën a am waaye différence bi nag mooy ñun ñu saraxu lépp lu ñuy am dañ koy am suñu dignité ndax loolu la ñu yaree lépp lu ñu am suñu dignité moo ñu ko may waaye du yàgg mukk ba ñu saraxu def nañ at boo xam ne suñu julli dañuy xuus ba ci suñuy óom waaye taxul benn ajuma rawuñu ndax ndigal liñ ñu jox ci béréb bii nañ ko fonk nañ ko fonk boo xam ne su nekkoon safara mooy tàkk ci diggante bi itam danañ jaar safara si julli si ngir respecté boomu raw du bu waaye kon li ma lay wax daal ci mooy béréb war na tàkk béréb bi war na am ndox béréb bi war na am yoon yàlla miy joxe ndox nag di joxe yoon di joxe tali di joxe courant dana ko joxe benn nag ñi ñu yàlla dénk ñoom ñu defal ñu ko wala ñu bañ ko def bés jot ñu ñëw fekk yàlla defal nañu ko waaye yàgg-yàgg dana am ndax borom ñaan na ko te li borom ñaan forcé mu am waaye nag ma xam ne ñun ay sénégalais lañ te it amul kenn koo xam ne gën na ñu contribuer ci contribution bi nga xam ne moom la kilifa diine war a def ci réew mi ñun danañu yar ci ji yari ruux danañu yar ci daara ji ndax daara jaa ngi fi danañu yar ci école bi danañu yar ci liggéeyloo nit boo xam ne réew dana ko soxla nit diine war ci taxaw ndaree ñun ñu cay béy waa guddi ak bëccëg ñaareel ba su fekkee jëriñ nit ñi rek ci àdduna tey au niveau international soo ci duggee tey dafay mel ni sëñ baa ngi dund ak ñun ndax amul benn bés boo xam ne dana jot wala benn événement boo xam ne dina présenté wu lay doon sëñ bi waxoon nañ lañ ci war a te yàgg na lool kat te mu ngi ñëw ba ci kanam du jeex ba mu fii ba ba dee événement bu mën a xew ak léegi moo ëpp foofu ña ko xamoon ba muy dund kon jëmm ju mel noonu bérébam warut doon béréb boo xam ne dañ koy sàgganee jëmm ju noonu place am warut doon place boo xam ne dañ koy réeree di ko gam-game du mës a réer nag du mës a gam-gam loo ndax nit duul moo ko yëkkati waaye yàlla ci boppam moo ko yëkkatil boppam te lu yàlla yëkkati ñëpp koy séen lu nit yëkkati nag mën na ñàkk a séenu ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM salin bu siin Saloum nekkul ci lenn lu may exploité askanu Kaolack ndangaan taxawaayam ak jëfinam ñoom tubaab yooyu le ñaawlu nañu ko bu baax ñi nga xamante ne ñoo di waa FRAPP France dégage seen bànqaas bi nekk fii ci diwaanu Kaolack ndangaan suñu ndaw Cheikh Tidiane Diagne demoon na seeti leen ñu teewlu reportage bi. juróom-ñetti weer gannaaw bi ñu ko taxawalee fi nga xamante ne moo di ci diwaanu Kaolack FRAPP France dégage kuréel gi fës lool ci réew mi ndaw ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo fekk baax fii ci région bi nee nañu nag seen xeex bu njëkk dañ koy jëmale ci mbiru salin bu siin Saloum réewum ndax gis nañu ne nañu koy doxalee jaarul yoon. papaam moom ko yaayam moom ko lii ce sont les sénégalais ce sont les Kaolackois ñoom moom Kaolack donc il faut mu respecter Kaolack waay. Amadou Guissé mooy coordonnateur FRAPP bu Kaolack. ñu gis ne Guy Deschamps li muy def nii mooy exploitation maanaam day exploiter ressource naturelle bi nga xam ne moo nekk ci bras de mer de Kaolack muy sel bi di ko exploiter à sa guise te liñ ci seetlu mooy dafay exploiter non seulement suñu ressource naturelle mais dafay exploiter la population kaolackoise ndaw ñi fay dem di fa ut metti accident yi fay am ñëpp xam nañ ni ñu muy mujjee amul assurance amul dara. juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yi nga xamante ne nag dàqoon nañu leen foofee te ñu doon xeex ngir ñu jëlaat leen wala ñu fay leen seen koppar ñaawlu nañu ni directeur général bu Sane bu Sine doxalee ci mbir mi ni ñii woo ñu yor wala ko yoon ñu àtt ki dëgg. ñooñu ñun FRAPP jot nañ leen rencontré Sane dàq leen depuis des années te mënul fexe dëgg mais Guy Deschamps dafa def recours léegi ci recours boobu ñoom ñoo ngi ci taxawaat pour xeex pour que ñu jox leen dëgg pour ñu mën fay seen alal parce que ñoom moom dëgg waa FRAPP ne nag dinañu lëkkaloo tamit ak liggéeykat yi nga xamante ne ñu ngi ci biir Salé bu Sine Saloum dafay dund dund ko wéré ba ñëpp nekk ci jàmm ndax buumu njaam gi daal dokk ñun nag FRAPP dañoo bëgg gisanteeg ndaw yooyu noonu tënk ak ñoom seen problème génn def mais la lañ mooy sale problème yu posé kaw dafa bëri non seulement mooy yàq suuf si muy exploité suñu ressource naturelle muy exploité suñu jeunesse donc loolu dafa doy il faut que Guy Deschamps delloo xelam xam ne fii nekkul propriété privée coordonnateur bu FRAPP France dégage fii ci diwaanu Kaolack nag nee na kuréel gi dina wax tamit ci yeneen ponk waaye nag gis nañu ne bi ñu ko fi taxawalee ba léegi lu xeetook wàllu autorisation de marche kilifa yi dañu leen koy xañ Cheikh Tidiane Diagne Choukran Amadou Guissé moom nag daal dinay wax geneen wàll ga ñaawlu bu baax ñu teg loxo ndax fa wax kàddu yu ñaaw ñu ne jëmale ko ci gendarmerie te si jamono jooju Bougazelli wax na leen lu ko gën a ñaaw te ba léegi kenn tegut ko loxo mu mel ni réew mi kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am ay kàddoom ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Diagne waa gi marchand dañ naan du guléet rek ndaxte yàgg nañ ko def mais bii tamit dafa nekk loo xam ne jar na taxaw seetlu ñu ne nag loolu recul démocratie la déjà Guy Marius Sagna dafa doon dem récemment apporter soutien wam ñëw wone naqaram ci ñi nga xam ne moom ak ak ñetti camarades bi ñu leen jàppee un moment donné libéré nañ deux camarades mais moom bàyyiwuñ ko dañu koy déplorer déjà dañ lay jàpp anam boo xam sans motif deuxièmement ko jàppee andi nañ ko direct Dakar yóbbu ko ci commissariat central ci li gën a ci mbir yi mooy instant bi toppee wuñ ko ci li mu dem Vélingara pour jàppale ay camarades mais dañ ko toppee ci jàngat bu def ci post Facebook am jàngat boo xam ne da koo teg ci gendarmerie liggéey bu muy liggéey mooy gendarmerie boo xam nekkatul gendarmerie au politique moom mu jàpp loolu du yoon parce que gendarme national wax police nationale lañ wax donc dañ leen a teg fii pour ñuy aar askan bi bi mu defee boobu jàngatam ci la ne jàngatam bi dafa tooñ wala dafa wax lu mu warul wax ñuy fàttali rek ni Bougazali moo fi toogoon d'après biñ génnee ay vidéo yuy wala ni moom mi trafiquant de faux la mu génn télé wax lu ko neex ci gendarmerie wax gendarmerie que ñoom dañ ko bëggoon corrompre pour mu jox leen cinquante millions ñi libéré ko déjà cité na ay non wax na lu ko neex pourtant benn convocation ñëwul wu ko nekk ci dëkk boo xam ne justice deux poids deux mesures lañ fi am parce que fekkee ni citoyen bu waxee xalaatam loo xam ne teg na ko fu wóor dañ koy jàpp noot ko di ko jaay doole bu fekkee beneen citoyen boo xam ne moom dafa am nomba tànk maanaam dañ koo fal ci réew mi bu waxee lu ko neex kenn ko lijjanti ñu jàpp loolu du dëgg du yoon bind nañ communiqué communiqué bi nag partagé nañ ko niveau régional ñi wax ni frappe Kaolack nag wax a moo tax ñuy a affaires yoo xam moo leen permettre ñu mën a noot askan nañ jàpp ni c'est peine perdue parce que ñun duñ leen bàyyi ci loolu surtout parce que constitution moo ñu may pour ñu mars ñu xaar luñ ciy am comme réponse incha allah. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM askanu kawoon nag ña ca gën a bëri sa ñoom nag ña nga ca ginnaaw ki nga xam ne moo di faatu seen samp nañu ko ngir mu nekk seen candidat jiite mairie bu kawoon lépp ngir suqali ko génne leen sa seeni jafe-jafe ndaje man doon amal ci la ko fësalee ci teewaayu suñu ndaw Cheikh Tidiane saar ñu teewlu ko soxna la wante dafa bëgg mairie bu kawoon ñu koy wax Fatou seen faatu seen nag doon na jigéen ju jàmbaare nekk koo xam ne jamono ji nee na am na yaakaar bu baax a baax ne bi ñu demee ci élection yi dina ci am ndam lu mag a mag moom présidente mouvement bi ñuy wax wax muur ko woon pour la renaissance et l' espoir Fatou Sène. góor baax na jigéen baax na wante Fatou seen moom lu mu jàpp moo di faw ñu am beneen équipe bu bees te it moom matee na ko ngir doxal indi fi yeneen gis-gis ci développement ci kawoon doomu kawoon bi yàgg di taxawu askan wi askan woowu jaarale ko ci soxna yi ba ci ndaw yi mu jàpp ne ne moom mooy seen candidate Fatou Sène. gis ngeen li xew ci stade bi foog naa ne jeunesse bi day naan Fatou mooy candidatu jeunesse femmes donc yéen même bu leen ko waxut sax mën ngeen ko observer li nga xam ne xew na ci stade bi donc nekkul loo xam ne dafa ump kenn nee lu ne fàng kenn du ko ji donc ça c'est vraiment palpable gis ngeen jeunes yi niñ ma accueillir et ça fierté la pour man. ñu ko benn final boo xam ne ñu ngi ko tuddee woon de l'espoir yi ñuy wax juboo ak jàppoo te jàppoo mujj jël ndam li parti bi moom mi nga xam ne nag militant yu bëree bëree ko wuyu ci woon ci stade bu ko woon mu ngi wax ne jaarale ko ci moom mi nga xam ne bokk na ci raar soxna yi ci senegal yi daagaan jamono ji baatu askan wi ci gox yeeg yi Cheikh Tidiane Sarr jërëjëf waaye duñu la bàyyi ndax tàllal nga sa micro euh, faatu seen boobu nga xam ne mooy candidat ca mairie bu euh, Kahone ci bi muy amal ñaareelu édition tournoi espoir euh, pour ndaw Kahone ya ci wàllu tàggat yaram fas yéene na ngir jàppale leen bu baax a baax ñu la ay kàddoom. ñoo ngi nii ci stade Kahone di organiser la deuxième édition tournoi de l'espoir daaw defoon nañ ko ren ñoo ngi koy defaat encore donc buñ ko defee dañ ciy am mbégte mbégte suñu jeunesse muy jeunesse jàppale leen ci domaine bi nga xam ne domaine sport la jeunesse bi di ci jooy mu nekk domaine boo xam ne vraiment dafa sooxe tey bu ñu ñëwee réussir ci domaine bii rek dafa nekk fierté pour ñun parce que dañ ciy sentir que ci suñu geste bii ñu def ci suñu parrainage bii ñu def ci organisation comme son nom l'indique du tournoi de l'espoir que jeunesse bi mën nañ ci am espoir pour vraiment gën a dem de l'avant donc lii maillot la am na blouson am na trophée gis ngeen trophée bi trophée bi yéene la parce que lii bu ma ko defee damay yaakaar ne jeunes yi buñ ko gisee dina leen gën a booster dina leen gën a encourager pour ñu dem de l'avant donc jaawle man ak ñoom ba sport bi gën suqaliku donc loolu c'est engagement boo xam ne jël naa ko yàlla bu ñu fi tegee man ak ñoom ba sport bi suqaliku donc ci suba comme niñ ko defee nii deuxième édition au tournant de l'espoir ci suba aussi dañu remettre ay fournitures scolaires mu nekkoon aussi deuxième édition orphelin commune bi daaw defoon nañ ko ren ñu defaat ko daaw nag ñu amoon moins de cent ren ñu ñëw am trois cent cinquante quatre orphelins ñoom yaakaar la ñu am ci ñun te période bi nga xam ñuy def pour jàppale seen doom yi ñu dem jàngi école pour ñun mbégte la lu baax la daal ñu jàppale xale yooyu nga xam ne surtout dañu ñàkk seen parents ñu defaat aussi deuxième édition promotion de l' excellence à l' tey gis nañ ne jigéen yi ñu bëri parents yi surtout ci commune bi nga xam ne foofu la ñu nekk mu nekk une commune boo xam ne c' est à moitié rurale à urbaine nga xam ne la plupart du dañu naan jigéen yi bu ñu jàngee tuuti rek mën askanu njeejeen nag doyal nañu sëkk ca seen maire ba ndax fa ñoo jàpp ne fa tëlee dara la xamut jàngut lii yëpp nag moo tax ñu tànn Babacar Diouf samp ko candidat ngir mu jiite seen mairie ba mitin bu mag la ñu amal suñu ndaw Noabiaye fekkee woon na ko askan yi nekk fii ci commune bu njeejeen département bu Kaolack ñoo doon amoon ci weekend bi benn méga meeting mu dem ci élection locale yu war a ñëw ñooñu tànn nañ seen candidat mu nekk professeur Babacar Diouf conseiller municipal la ci commune bu njeejeen Ngéyeen dafa bëgg changement jamono bu ñu toll nii Ngéyeen bëggatut maire boo xam ne day wax ne signal ma fii lan la ñu wax loolu dépassé nañ ko dañoo bëgg président mu bàyyi xelam mu am vigilance parce que ñu bari ñu ngi rumbandaat naan récépissé bi jox nañ ko monsieur le maire parce que moom lañ def confiance te ñu nag duñ fi woote population bi ñoom ñoo fiy woote xam nañ ne élection yi moom pare na Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk. kii mu nekk candidat à la candidature si élection locale mu war a ñëw ci at atum 2022 ñëw na ci jafe-jafe yoo xam ne askan yi njeejeen ak ñu ko wër ñu ko am saa su ne ko waxee yoon bi nga xam ne boobu tey mu ngi fi électrification rurale bi nga xam ne programme président Macky Sall la njeejeen maire bi fi toog mënul wax ne village bi maa ko électrifié ki nga xam ne moom lañ jiital moo amul capacité pour dem wuute pour indil waa njeejeen waaye président Macky Sall projet yeeg programme yi teg na ko ci table yi maire yi nga xam ne ñoo compétent yi nekk fi ci commune bu njeejeen ñun lu ñu bëgg mooy ni changement ci mairie bu Ndiédiène am yaakaar ci équipe bu bees bi war a ñëw ci wàllu développement ci commune bu Ndiédiène. noa bi ay albarka waaye nag ki nga xam ne moo di Babacar Diouf moomu na daal dinay leeral ne ñoom ña nga ca ginnaaw madame la maire Mariama Sarr lépp ngir ànd suqali seen diiwaan ba ñu la ay kàddoom ak noa bi ay fii nekku fi fii Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk ànd ak monsieur le madame Mariama Sarr ñu bëgg ngeen jox ñu ko madame le ministre Mariama Sarr ñun ñu ngi ci ginnaawam tey ñu ngi ci ginnaawam ëllëg parce que ñun ci part bi la ñu des te ci responsable parti yi xamee nañ leen ñoom la ñuy topp seen direction fu ñu jublu ñu jubloog ñoom wax leen ko ne lépp loo xam ne am na ko ci activité bu ko neexee guddi minuit nañu woo trois heures du matin nañu woo cinq heures du matin nañu woo ñun fas yéene nañ pare pour nekk ci ginnaawam honorable El Hadj Malick Gueye comme ni mu ko waxee foog naa ne ko kenn du ko présenté waxuma Saloum ñëpp a ko xam ba nga xamee ne wax nañ ne moom lañ honoré meeting bi foog naa ne ñëpp ñoo xam ne ragaloon na tiit nañ parce que xam nañ ne ponkal lañ ko tuddee ku ko bañi tamit xam ne fii ci Ndiaye Dieng nekku fi maire nekku fi PCR waaye lu fi def am na ñu fi nekk maire nekk fi PCR te defuñ ko fi nga xam ne ñoo nekk ci suñ localité bi Ndiaye Dieng mooy lieu d'arrondissement boo toon fii Kër Socé boot fii Ndiafat waaye bu ngeen xoolee Ndiafat ak Kër Socé ci électrification rurale foog naa ne ay dëkk yu leen manqué manqué la ñuy wax ay dëkk yu leen dese pour électrification rurale la ñuy wax ñooñu fu ñu jaar ak fu ñu ko jëlee ci président Macky Sall lañ ko jëlee waaye ki ñu jiital moo amul aptitude pour mu ñu ko wuutal indil ñu ko loolu moo tax ñu fas yéene bu ñu falee ñu sol suñu dal yi dem fi nga xam ne foofu lañ war a dem bind li nga xam ne moom lañ war a bind défendre ko wut coopération décentralisée mën a suqali njeejëng bi nga xam ne lu nekk la manqué. ki nga xam ne nag leen tuddee woon meeting bi ni mel du kenn ku may El Hadji Malick Guèye bu Latmingué ba mu jëlee kàddu nag la mu xamle mooy kenn du falu maire ca diwaanu Ndiédiène lu dul moom moo ko tànn ndax lam liggéey ca diwaan ba te ma ngay wax président Macky Sall na ko liste bu baax bi ak ki ñu war a jiital mooy Babacar Diouf kon na bàyyi askan wi tànnal seen bopp ay kàddoom ñu teewlu ko ak Noa Biaye ma ne ci gàttal ku ma neexul Malick mii du falu Ndiédiène ku ma neexul doo falu fii ku mu neex ku mu naqari laa wax sama jëfa ma ko may 27 trondoor kenn du ko am ci ab géew di oti di bes bés man ki may waxal xam xam naa fan laa koy waxee ak moom xam naa ban yoon laa koy jaarale monsieur le président yow lay waxal Sine Saloum yoru lañ bëgg Sine leen lépp loo ootoon lépp loo soxla woon lépp loo bëggoon ci ñoom kon delloo leen luñ moom la bàyyi Saloum ñu tànnal seen bopp ñu tànn ka nga xam ne moom lañ óolu moom lañ yaakaar monsieur le président waru gar lab doomi Saloum ànd ak yow ndax président Macky Sall doomi Sine Saloum la première dame doomi Sine président Assemblée nationale doomi Sine Saloum la kon Sine Saloum ànd président Macky Sall waru la ndax Saloum def na mbokkam tuddul boppam boppam la daf ne doomam tudd doomam ndax du moom la pratiqué nañ ko président Macky Sall mu falu ma léegi mosu perte si Saloum benn localité président liste bii nañ ko validé liste bii ku ko validéwul fii doo fi validé maa koy campagne du yéen yéen a koy def dama ne maa ngi géey bu defee annonce maa ngi tourné commune na Ndiédiène bi day dëkk bu ma demul duñ toog ay seen abu ci yow ñoo am droit tànn suñu doom ñoo am droit tànn kii yaakaar ne moo man ñoo am droit tànn ki nga xam ne moom la ñuy woteel te yow président Macky Sall xam naa ne yow macha allah ku am xel nga ku am yërmande rek si Sine ku bugg Sine nga ni nga ko xam ne amoo dara looy jëndee Sine xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew yi fan nga koy tàmbalee. dañ koy dooree ca Burkina Faso wax ci fukki soldat yoo xam ne dañ leen a faat ci ab song boo xam ne amati na ca réew ma. mu nekk lu métti métti loo xam ne nag daanaka weer yu jot ñu dund ko ñoom waa réew mii ñuy wax Burkina Faso ay song yoo xam ne ay nit yu yor ngàndaay ñoo koy faral di def ci seen réew ma bu ci mujj daal nee nañ fukki soldat ak ñeent jot nañ ci ñàkk seen bakkan mu ñu sukkandikoo ci xibaar jamono ji daal xamaguñ kan moo jëf-jëf ju nu mel donte sax ñu ngi wax ne daal gaa yooyu dañuy faral di yor ay moto song ay gox di leen faat faat yoo xam ne daal lu ñaaw ñaaw la wante bii moom ay soldat lañ song faat ci ñoom lu toll ak fukki nit ak ñeent foofule ca Burkina Faso. xabaar yi bitim réew. Éthiopie amaat na élimaanu jëwriñ bu bees premier ministre ñu koy wax Abiy Ahmed moom ñu tabaat ko mu war a amaat beneen mandat bu juróom mi at Éthiopie ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci wàllum kaaraange koom-koom ak li leen gën a sonal lool ci seen dëkk ba di coowal Tigré ba benn diwaan nekk foofule ak militaire yi fa nekk daal leen seen indépendance bopp daal euh, mu nekk ay fitna yoo xam ne réew maa ngi koy dund wante ci waxtu boobu daal moom lañ ko tabbaat ngir mu wëyal liggéey ba moom élimaanu jëwrin bi ñuy wax Abiy Ahmed jël raw gàddu ga ci élection législative ya danoon fi tamit lauréat ci atum 2019 soxal prix Nobel bi ñu daan wax prix Nobel de la paix Abiy Ahmed nag jamono ji ñu bëri daal dañ koy critiquer ci àdduna wërngal këpp ndax lajj gu mu lajj ci coow lool ñuy wax coowal Tigré bi foofu la ci réew ma. bitim réew ca Angleterre lu fa am moo di daal ñàkkum main d'œuvre soxal entreprise ya entreprise ya daal ñoo am jafe-jafe ngir am ñu leen liggéeyal ci seen barab yooyu rawatina nag ci secteur yi nga xam ne moo soxal wàllum dem beek dikk bi mbay mi wala sax li ñuy wax wàllum hôtellerie loolu yëpp soxee ko ci benn enquête boo xam ne benn cabinet moo ko def di cabinet conseil BDO mi nga xam ne moo dëggal xibaar yu nu mel foofu le ci réew mi ñuy wax Angleterre. xabaar yi tàmbalee ak coow lii ñuy wax Pandora Papers Pandora Papers nag jamono ji di ab gëstu boo xam ne ay journalistes yoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllum investigation ñoo ko fësal di wane ne daal am na ci ay kilifa yu bëree bëri ci àdduna wërngal këpp rawatina ay njiitalu réew yoo xam ne daal ñoom jamono ji dañuy bañ a fay li ñu wax daal euh, wàllum fisc bi dem sax ba yoral li nga xam ne moo di seen réew yooyu li ñu wax ci koppar gu takkoo takku jëm ci wàllum impôt bi ak yeneen ci ay luubal yoo xam ne ñu ngi ko fay def di fa rawale seen alal ñuy wax ne gannaaw bi nga xam ne ci atum 2016 yaa ngi fi doon dégg euh, ñu doon Ice Papers ci atum 2017 jëm timit ci Mauritius Leaks en 2019 ak Luanda Leaks ci atum 2020 génnee nañ liste bu mujj soxal wàllum Pandora Papers di consortium boo xam ne nag mu ngi takkee ay journalistes yu yëngatu ci wàllum investigation fësal ne ñetti téeméeri nit ak fanweer ak juróom-benn doon ay responsable politique yu ràññeeku ci àdduna wërngal këpp daal ñoom seen taxawaay ci wàllum fay euh, fisc bi jëm ci wàllum impôt yeeg euh, yu nu mel daal dees koy xoolaat bu baax a baax taxawaay boobu nag am na ñoo xam ne ay doomu Afrique lañ bokk nañ ci nee nañ sax njiital réew bu Kenya ak ay kilifa yu dëkk Angola Côte d'Ivoire ba ci Tchad Gabon Congo Brazzaville wante nag am na ay communiqué yu génn commencé di wane ne daal loolu yëpp gars yi def noonu ay tuumal la wante ñoom laale wuñu ak yu nu mel. xabaar yi bitim réew. Moussa kan yow tamit nuyu naa la xibaaru tàggat yaram yi fan nga koy dooree. El Hadj Umar maa ngi lay fay te nuyu mbokku auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak euh, football xam ngeen ne nag ginnaaw bu ñu jógee ci ñaari bëccëg yu njëkk yi nag ñu ngi ci ñetteel ak ñeenteelu bëccëg jëm ci éliminatoire mondial 2022 bi door tey nag zone Afrique bu ñeenti waxtu jotee Soudan mooy laaleeg Guinée ca Marrakech Maroc di laaleeg Guinée Bissau ca Rabat bu juróom-ñaari waxtu jotee ñu fàttali leen nag ki jiitu ci poule bu nekk nag moom mooy qualifié ca barrage bi ñu daal def sax ab taxaw jàngat ci li nga xamante ni moom mooy classement bi fu mu toll nii ci groupe A bi nag foofu Algérie moo fa jiitu am na ñeenti poñ topp ci Burkina Faso ñeenti poñ Niger ak Djibouti ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe B Tunisie juróom-benn poñ la am topp ci Zambie ñetti poñ Guinée équatoriale ak Mauritanie ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe C Nigéria juróom-benn poñ Libéria am ñetti poñ Cap-Vert ak Centre ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe D Côte d'Ivoire moo jiitu am na poñ topp ci Cameroun ñetti poñ Malawi ak Mozambique ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe E Mali moo jiitu am na ñeenti poñ topp ci Kenya am na ñaari poñ Uganda ak Rwanda ñoo nekk ci suufu tablo bi groupe F Libye moo jiitu am na juróom-benn poñ Égypte ñeenti poñ moo ci topp Gabon ak Angola ñoo nekk ci suufu tablo bi groupe G Afrique du Sud moo jiitu am na ñeenti poñ topp ci Ghana ñetti poñ Éthiopie ak Zimbabwe ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe H Sénégal moo ci jiitu am na juróom-benn poñ Namibie topp ci am na ñeenti poñ Congo Togo ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe I Guinée Bissau moo jiitu am na ñeenti poñ topp ci Maroc am na ñetti poñ Guinée ak Soudan ñoo nekk ci suufu tableau bi groupe J Tanzanie moo jiitu am na ñeenti poñ topp ci Bénin RDC Congo ak Madagascar ñoo nekk ci suufu tableau bi ñu dem ci dendok Europe foofu nag demi-finale Ligue des Nations tey lay door Italie mooy laa lekk Espagne bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom suba nag Belgique di bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ginnaaw mondial ba amoon ca Russie équipe nationale bu Sénégal nag fu mu toll nii équipe nationale bu Sénégal nag ma nga ca wàcca yu tournoi intercontinental beach soccer cup bay am ca Dubaï ñaari fan ba juróom-benn fan ci weeru novembre gi équipe nationale sax mi ngi ci ak wàccaay goo xamante ni wàccaayu régime externe la ñu ngi koy amalee ca plage u Jàmmalaay ñu waxtaane Alaaji Umar wàllum fay nag ni ñu ko amale woon ci atum 2020 faneeru édition bekk ñett nag traversé Dakar Gorée do am nag ci at mi dañu ko daxaat li ko waral nag moom mooy mbas mi di coronavirus bu ñu sukkandikoo daal ci kàddu yu bàyyi ko ci fédération sénégalaise bi ñu dénk wàllum natation ak sauvetage ñu waxtaane wàllum judo championnat du monde de judo nag ci wàllum junior yi tey ji nag lay door foofu ca Italie ci dëkk bi ñuy wax Olbia kii di Yacine Diatta 70 kilos ak Oumar Mballo ñoom ñooy ñaari gaynde yi fas yéene teewal sunu réew foofu ca championnat du monde yi ñu jàpp ko juróom-benn fan tey ji lay door ba fukki fan ci weeru octobre ca biir Italie. jeexalee ko ak lamb nag bëre dóor promoteur bi di du Diakhaté ñu gën ko xam ci Jax nag moom nag ne na du bàyyi bésu benn fan ci weeru janvier nag ak kii di seen doyen di Gaston Mbengue bi ci bëggoon a taxawal combat Balla Gaye 2 ak B52 bi ñu dàqati moom Mamadou Diakhaté sax nee na ci bés boobu na daf ci amal benn gala boo xamante ni def cee tekk fukki million ak benn ma ngoog Alaaji Umar gannaaw bu la ñaanalee kandaa yu jàmm li moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram jàngeen jëf li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf euh, naan bikum xam na ñaari député yoo xamante ne xaw nañ yoonu dem kaso ca rëbës allah te mooy yéen a kaay ñu ko xamal source a yéen a kaay dëggal ko na ko xam nga yéen député la Amadou Sall ak bi Biaye mooy ñaar ñu ñu tudd ci mbiru traficu passeport diplomatique yi ndungu siin mooy xeñ ci ñoom ñaar si du quotidien na xam ngeen lu tax jëwriñ ji dénk wàllu yoon maître Malick Sall fa sàkku ci Moustapha Niass assemblée nationale ñu dindi malaanu kiiraayu ñaari ngir ci yoon mooy ne xay xenoon na leen fañ leen di tëj ba damu ca caabi ja alerte yéen a dëggal xibaar bi le mandat yéen a kaay na jëwriñ ji taxal na morso ba ma ngay lakk te ca kaw député la jëm laas yéen a kaay na ko procédure ba fañ koo déclenché ñaari député yooyu kay fa ñoo nar a fori new de c'est ba ñu waajal seen bopp l'observateur ne man kay faaleen jàqal ñaari daan moom lañ nar a xam assemblée nationale ci boppam mën na leen a topp attekat yi tamit topp a national nag Moustapha Niass démbu daal internet bi woon Moustapha Niass na faatu na ba xibaar bi tasaaroo waaye xam nga Moustapha Niass nu mu defam bi mu déggee xibaar bi fa gaaw weddi ko ba mu set wecc ne maa ngi nii lu wokkut dërëmu Mali wokkut ma alhamdulilahi bu leen ma rey info yéene kaay ne Moustapha Niass ni mu weddee xibaar bi moo neex yaw seetal fa dem sa dictionnaire ba génnee ay baat yoo xam ne tubaab yi ko gën a xóot dóor ko gaañi xëlbatiku jëfandikoo waxu saalum saalum yu fatt taraj mais gis nga dimb saalum ya nañu dundee noonu laa dundee wér kéñ yéene kaay bi ne ab leetar ba tàqal la bind doomam ji ñuy wax Anta ngir dalal xelam na ko sa béy mi ngi dund de Babacar Saddiya Soxna responsable AFP ca diwaanu Kaolack ndangaan Medina Baye ne man xibaar bi bi moo ko déggee démb faa tiit jaaxle ay fake news la daraa ci amut moo tax nit ñi ba lañoo jàllale xibaar fañ ko war a seetaat ñaawlu naa liyan mu yokk ca moom Babacar ne Moustapha Niass ñaar fukk ak juróom ñent la tàmbalee liggéey réewum lu ne def na ko fi am na xam ne du respect te kenn waru ko xoo yéene kàddoom yaa ngi ci l'évidence yéene kaay nay leer leneen lu leer ba yegg ca naññ bi mooy ne école Sénégal yi fa ñoo xopp feebar <laughs> yaaw seetal école publique yi xamuñu ay jumtuwaay jàngalekat yi la xam doy na ñu ne déetawaay école privée yi xapp ak lakk lañ fa ñoo bëri ba tax lee si ko yéene kaay ne suñ njàngale mi xam nga li ñuy wax privatisation fa la ñuy jëm de l' observateur na ko ma yokkal la ci ubbite école bii fa rate gaañ fa ñoo daanu ba xalangu yaaw seetal tenu yi nga xam ne fa ñoo waxoon fañ koy ñawlu ngir élèves yëpp di ko sol tenu yi parewu te école tijji na ñu ne déetawaay juróomi junne jàngalekat ñu wax ci wàllu emploi yi seen formation formation ba tàggatu ga jaarut yoon léegi kuñ tàggatut bu baax noo joxee xam-xam bu baax réew mi yéen a kaay na leen li gën a garaaw ci njàngale mi Sénégal mooy école privée yi waxuma la bëri biñ bëri waaye téeméer boo ci jël juróom ya amuñ autorisation maanaam waru ñoo jàngale gars yi fa ñu lijjanti rek li état bi lijjanti nag ci xëyu ndaw ñi ci wàllu environnement bi alam bi toll nañ ci juróom benn junne ak juróomi téeméeri ndaw la Soleil yéen a kaay ñu ko xamal mu ñu xamal moom Tribune yéen a kaay mooy ne télé ba ñuy wax seen fi mu toll nii de boo mooy tuut journaliste liggéeykat yu bëri fañ a a dàq ah leen fayee di xaalis weeru dee seen compte ba naan naam ne fa yéen kaay bi ne monstre moo ñu bëgg a rey seen TV fi mu toll ni fañ koo xoj xanam goo xam ne du dëgg du yoon leneen lu nekkut yoon Sénégal mooy tabax ay bâtiment ci xanam gu dëppoot yoon muy nërmeelu di daanu rey ay nit bu yàggul juróom benn nit wala duy xab bato bam rembat mu suux nit ña dee ak yeneen yi ni mel enquête yéen kaay ne saa bu amee ci réew mi nag nit ñi fañ koy coow wax wax wax waaye fa ñu mujj fàtte ko di luwaat ca lañ nekkoon loolu baaxut leneen lu baaxut mooy luyaas yu yi am Sénégal tey lii yéen kaay nee na état bi complice la moo ci baara yógoo ak borom kër yi su ko def askan dee ak coono day leer la leer ba mel ni jant tusu baar mooy ne PDS téeméer ak fukk ak juróom-ñaari meer yi nga xam ne moo leen gañe woon ci élection locale yële génn wàll ga dem nañ fekk ji Macky sàll ba tax source a yéene kaay na PDS ñoom ñoo gën a loru ci li ñuy wax transiment politique keneen kuy def politique ca diiwaanu Kaolack ndangaan Abdoulaye Xumma tey wax na fukki dëggam ak juróom-ñeent ca Direct News yow seetal Ablaye Xuma nee na Benno Bokk Yaakaar suñ ma samp tedd ngir ma nekk maire maire bu Kaolack mu yokku ca ne Macky Sall nag ba fii may wax ak yéen amul kenn koo xam ne tànn na la Kaolack ngir nga nekk mandataire u Benno Bokk Yaakaar xumma daal di cay yokku ne lu ëpp ñaar fukki at askanu Kaolack a ngi sonn maire bu nekk andi nañ ko fi léegi jot na nag ñu jox ko ab ndaw te moom ndaw la bilan Mariama Sarr nag Ablaye Xuma nee na moo gën a bon musiba la ci askanu Kaolack mu yokk ca ne ay raxmaak Mariama Sarr yii seen bopp rek lañu nekk intérêt askanu Kaolack taxu leen a jóg waaye ak moom nag Kaolack dana soppeeku keneen ku bëgg soppi Kaolack ndangaan jaare ko ca fika foire muy président Serigne Boub la dépêche yéene kaay xalifa bu Medina Baay dalal na ko rafetlu tuddee gim ba pare ñaanal ko yàlla ja mooy Ablaay Wàdd noppi na ngir dalal Alpha Condé ba gars yi ga ca loxom Guinée nee na ko ñëwal fii sama kër Ndakaaru ma jox la ko nga toog noppalu 24 heures yéen kaay ñi ko xamal si di quotidien na ko ab bataaxal la ko bind ngi xaar luy Condé di tontu la tontu attekat ba démb ñoom kilifa ak Simon mooy mboolam lu ñu leen tuumaal daraa ca amul weddi nañ ko ba tëdd ca naaj wa l'observateur ne waaye du leen ci génne de ndax cher moo leen gën a taqalati lu ñu weddi rek mu andi ca firnde li am firnde nag te neexu te gëm ndakaaru laa xamee yow seetal benn waay daal fa jóg rek sol mbubb mu weex ne ab docteur la ci pharmacie léegi benn soxna ñëw mu laaj ko quatre cent mille ngir mu pikir ko yokkal ko ginnaawam gi ndaw sa jox ko ko waaye gis nga ba mu ko pikiree xaw tuuti ko na ndaw sa dee deewoon na sax ba noppi fërëcc ndax lam ko jox dara la ca xamul du docteur waaja nag teg nañ ko loxo les éco yéen kaay moo ñu ko xamal man xaw ma boo ci deewoon lay wax yokk rek gërëm leen ñi leen yàlla bindee réew mi di ñu xamal mbir mu reetaan lu benn waay daal moo jàpp jabaram xawtun mu rey ko de fa koo di ko mbuqi di ko mbuqi xajji kaabaaba ba toj jëba xam ngeen lu tax mu def li yëpp ndékki ndékki ndékki mel ni mi ah! ma wax leen nu waa ji sant nekk leen nandite xam ngeen ko mooy borom yenn sant yi rek li ci yéene kaay yooyu nag mooy ponk bu mujj ci xibaar yi auditeurs yi bala maa yëkkati jotaay bi rek ngeen baal ma ma fàttali leen ci li fi gënoon a fës kilifa yi Medina Baye nag ci njiital porte parole bi di Cheikh Mahi Ali Cissé dem nañu ca Ndakaaru ca dalwaay jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi waxtaanee lépp lu jëm ci gàmmuk international bu bàyyi bi bile waxtaan wala ca gën a fës bokk na ca wàlluk assainissement bu Medina Baye ya leeraleeg yaatal yi dégg ngeen ko ci biir xibaar yi ca geneen wàll ga nag xalifa bu Medina Baye Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass daal dinay dalal président Serigne Mboup mi nga xamante ne foire internationale bu Kaolack muy FICA ren bàyyi ñas la ko tuddee li nu mel di guléet ndax taxawaayu Baye Niass ci diina ji ak ci Sénégal ba bitim réew xalifa ba rafetlu li nu mel ñaanal ko yàlla ay projet am lépp sot yëkkati ndax njëriñu Kaolack ak Sénégal la bokk na ci foire bi ni mel FRAPP France Dégage seen bànqaas bi ci diwaanu Kaolack nag ñu ngi ñaawlu doxalin ak taxawaayu salin tubaab ba fa nekk daal ginnaaw suñu xorom si muy jël fañoo ñoo jàpp ne fay jaay doole ak noot askanu Kaolack askanu njeejeen ñenn ca ñoom tànn nañu professeur Babacar Diouf ngir mu nekk seen maire ndax fañoo ñoo jàpp ne maire ba ñu am jamono ji fëttale xamul dara buy signé sax xamul fu muy signé ndax jàngut français te mënta saafara seeni jafe-jafe a saafara du Diagne candidat la ngir jiite mairie bu diwaan ba askan wu bëri nekk ci ginnaaw lii bam yëmbee toftal nañ ci xibaaru bitim réew yi àndoon ci ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram ñu àndoon ci ak Moussa Kane li ci yéene kaay yi mooy li ko jeexal auditeurs yéen ñi féete woon ci déglu bi sant ngërëm ñeel na leen xanaa rek ñu di leen wax fii amaanillaahi le journal Omar Cissé